alhamdulillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu borom faasa leen di nuyu mooy Sidi Bara amoon na sakk leen seen daw gaañi diŋatoon bàyyi ku yàlla halal dangay diŋat sidi bara amoon na gayndeeg ñaloor ji war nga da xaacu yaada lamp far leeral nga àddina la ca biir sidi bara amoon na isin bu mag bi yaa yor yaa leen di may leer ñaa nga leeral ñaa nga lëndëmal Sidi Bara amoon na ci kaw lëndam taras xaw na ñooy dee ci neen yaa ñu xatun yaa ñu xeddi Sidi Bara amoon na génn leen ci lëndam gi bët set na ler gaa ngi baawaano montuuru l'islam bi sone na gaa ñi amoon na lëndëm gu rëy gi ñi nekkoon xaw na ñooy ci neen waay sam su fenk na andi leer sidi bara amu ne li ma nekkee du bëgg a wuy ŋaawaw sabul noor nan na ba mandi nuur ca leeri sidi baraha amma na mbindee fi haaya ca ga na leen du naan bokku leen ci du ngeen mën a gëm sidi baraha amma na mbindee fi yàlla haaya ca leer ga marwang leen di gaañ Ibrahima Diouf ñeexut kuy bañ Sidi Bara amu na dama gëlëm dama bimpin xuus naa ci géeji leer yi sama xol bi dafay say ngir sopp Bara amu na xam nga médaille xam nga sewetaas yaay gaalu mandu war maam asta wàcc nga yaaboot seexu tiijaani ne janoo saxaar da jàll ci looco da ngeen réere baay yërëm naa seen roxo yi weddi sidi bara amu ne man li ma nekkee duut bëgg a wëy sabu noor na ba man di nuur ca leer yi bara amu ne xëptal taxul doomi lëg matte bu leen tànqal Baay Ñas yàgg nañ fi yéen te duhuñ xaarif si di bara amoon na sama xel yu ràkk ca biir géej ga ñu da roota ndoor ndamuhuma dama naan ci nuuri leere bara amoon na warlu naa ni man dootuma xaatir lenn lu dut bàyyi na lum la gaw jëm fa ajaban sidi bara am mu na naweeti rahmaan ba taw na jëmbu yaa jakka ŋaax baatu layla la ñuy ŋaaxe sidi bara am mu na naweeti rahmaan ba taw na gaaña naan ba jaakaanam mbaxana yo foqondor fa sidi bara am mana surnaal dem nañ ba makka yaarami kontaan nañ xaqar xayartu Cheikh Tidiane feeñ na Soodaan Sidi Barham mu ne bul ñu hiidu ñas wax sa makkaan Xaliilu Rahmaan yàgg ngay wàcc di rappel ahlu Soodaane mbaal ak yónnantu gandoon mbaale da yóbbu aljana Sidi Barham jël na mbaal ga wali Soodaan mu ne bukki bu ñemoo ta sab du jàpp bëy gañ ñi siikar leen yi dem ci pi beugam len sidi bara amoon manga sinu ler si ba lañ dajji fere réewi soodaan pal ya nga nan gongo mbii mi gaa bara amoon manga sinu ler ba lañ dajji fere réewi soodaan sirir sanan barke fopes sidi bara amoon manga sinu ler ba lañ dajji forewi sodan so sasanan ali ngata bara amun manga sinum ler balay daji forewi sodan Arabianan nan min ka ajaban sidi bara amun anin cie anin bara njarama jirigel jëf merci sidi bara mbolem kadiya ñu ngay ramfa sidi bara am man a ya naan ca leer ga kaasamaas ngay jow fa jonko anitu sidi bara am man piccam xaqu dërëm ku ko def maas mu damm say laaf doole hemut haami wattu leen sidi bara am man linda binda wax ci kaw bu dajee xaq dërëm bu cay dellu mu damuy laafam sidi bara am mën janaaw li yaaram di wax an xaaw ca kaw asamaa ba biddi ba fekki la sabal sidi bara am mën a kër a fa ree tàccu ñi ne ñoom ngay ree baada yëgut wokki gëm leen sidi bara am jinne su bëggee daqaar ku yëg daanu wàcci leen gaaw fodi dof ne maa ngi weddi sidi bara am mun dallu karban ngaanagu ko sol ndaw jill buy ñaaw fu ngeen taxaw ba di diingat sidi bara am mun safara wattul ndox sagal-sagal wattul biram paate foo dey wattu leen bàyyi wëluyu yàlla duñ ko diingat sidi bara am na gaynde siwe hay ci mbaam ngonku da ngeen xamul bàyyi su ngeen xamoon te ràññee daw fa bara am mën a jësiti may may la ja ba mu feeñee ca biir blan ba cax yéen a daw di bara am ni kur def dugub bara am wulileel mu nooy wule ma joor sidi bara am gëj naa ci yàlla ne ku ko diingan dootoo xam ak leer ka ñëpp ba daw te yaa bari say ko gëj naa ci yàlla ne ku ko soppu. biir dootul ne foofu koy diinat. bam jaral la gàddaay jaayal sa téere yow tëralal. wirde tijaan tijaan buy diingat seeku tijaan. te ne tijaan laa danaanal butéelu sampañ yow. génn lislaam am na tayoor bu nekk fa suukun. mu ngay ñaw da jooy masin bëqante na moo bañ Cheikhu Tijaani ne maam abdi ñang murid saadiq bi moo da xaasi xaas maam abdi ñang amiri bi jax ci bara amoon na maamun mu yaay sëtu mooy sambur de commerce moo leen di fal hili ñoom xaasi bara am man a sëriñ Aliou Cissé directeur la passé na commandant moo leen di may permis waa kër Sidi Bara amana Serigne Mbaye Niass moo de député ca pays Sidi Baram ordal ya fa moom lay jaare Sidi Bara amana Cheikh Ibra Fall entrepreneur la mooy Kadi Bara moo da doxal gaay fa kër sidi bara am mone xaalam bu baraama dëgg tànkam bu koy yëqee faal warlu naa nga huutu foofa sidi bara am mone Ousmane Ndiaye toog ca kaadar ba moo leen di rappel laa bi yaa mandu yaay mairie bara am mone Cheikh Omar Touré koy sa colonel école militaire yaa yor école waa kër sidi baraam mana homor lool laamarama nga ca gaaña gëlëm ci baraam yaada sajjil peeyi waa kër sidi baraam mana baabu hawa hinga maqaama laawiq bi yaa furi yaada isiñiiri waa kër sidi baraam mana saadar soxna muril saadiq bi secrétaire bi merci moo may bindal wax ji may wax sidi baraam mana saadar soxna muril saadiq bi sa dakkul amin manding sidi bara amana sadar soxna murid sadiq bi yaa ma xàllal yoon bu takkutoon na këpteen gaar suux sidi bara amma si xusatu ñang am nga sewetaas dente nga baay si xusatu am nga sewetaas Cheikh Ousseynou am nga sawet ha si gëlëm ci barham fa ko ak malakut huru ay ni yaa ngi na yaay seen dëkkandoor de war lu naa ngay xaasi xaasi sidi barham mana Amadou Kadi Guinée Waalo yaay gërëm ci biir géej fàttal xaami daanu jaaxaan sidi barham mana yaa kotti gaal di dajji wenga kii ngay doxal gaal kapitaine sëlmaxa yaa ngi seen gaal sidi baraama yaa ayyuhan naasu irjo ila rabbikum dun bi kenn ndoor la gëm leen sidi baraama dee ci reer ji tere nit ñi yàlla moom dootu réer amrullahi lu ngeen ci man noonu barahama kullu nafsin saayiqatil mawti yaa ay wannaasu xarmel këram dul la gëm leen gaañi barahama a gannaaw dund gi dee a cee topp baleen xel ci dem soldar mu jëm faw ñu rappel yàlla yéex yàlla yéex Sidi Barham da ñàkk a juddu dee diñ ko galan loo gis ba bëggeen ba ñëw na gañi Barham man a waqi dee a koy weddi baleen xel ci dem bu gaal di ko se di départ Sidi Barham man a kuréel bu njëkk ba ba toppoon demen demee len bu galdi ko se galdi départ Sidi Barahama ne guddeeg bëccëg fajara koy hatte mom lam duun mom bu jant fenke lendem bi men gani gañi Barahama lu Baraham dole bare lay fajj ñak du reer borom baba yasin ci bay soppeem Sidi Baraha man a jaal leen ma murit saadiq bi Baba Yaasin ci bu Tijaan ba nga xeliina Sidi Baraha ma babaay da bub lu ca bambu gaar Baba Yaasin ci bu moom wesalen dar bara jox Sidi Baraha man a jox ko safoor boole ko essence na fekk liggéey bi pare lu ma xam nday dawal service kañ barahama samedi ci timis ba babay toll ci sukuraat hëtti fu rabban ba téléphone sidi barahama ne haati banko naan barahama sa doom baaba nee nga pareel ko pasgal gi ñëw na kañ barahama ne barahama le naan kuré bi waxal borom ngir mi dimanche ja ca une heure daa teer sidi barahama da toll mbi yen waalo la téléphone ba kaddu sonné puis lii na Sidi Barahama na téléphone ba ko naan Barahama soppe bee di laaj gan gu for gi kañ la muy ñëw Sidi Barahama na Barahama ngi leen naan bu ñu jullee waxtu tusubaar baaba wàcci lii na Sidi Barahama na ba ñoo baaba ca kër ga ba jam baabu ba pii yu manaw la la sabal sidi baraxam mën a bañ koy tëral taajul aarifine ne sàppee leen ba ma jébbal jàmm bi boromam sidi baraxam mbindee fi ne bëre sàppe ndoor alqaawu maghrib bi jublu penku sànni kambar sidi baraxam mën a misbaahu salaam bi sëlmale ba ne bëre taxaw na nome naa ko xelli yi na sidi baraxam mën a bara maa ngi naan mbooloo lu ngeen xam ci baaba jàmbo ragal borom baa ngi bañi barahama seedeel naa ko xeeti gëm yàlla yaama yu basuuna ku do soppeem duñ ko rammu bañi barahama ne yàlla mi dindi suuf si wiise asamaaw xal naay wawal lépp luy tooy gañi barahama barahama ko naan kapten bi dekk naa la baaba nan ko wàccee xel yi na sidi barahama kuréel bi jaayanteeg haddina doxadal l'islam bi waahidun qahaaru yal na leen yar lañu barahama ne haddina hotkat bi sant rëccu dakk yomba wéyku dafay doxay jaayanteeg moom lañu barahama ne haddina mbar mu tële la matta jaayal biti gëm iblis la ku ko jaayal rek la perte gañi barahama ne haddina baagab caax la duy fañ mar dangay root ba dee muy tuuru ngay riccu gëm gañe bara mujang mbaam ca tan ya lu ci waay def ci boppam lay tees ku la yawmin huwa fi sha'nin gañe bara mën a gàffa ganaar këpp ca bopp ba la du fay daay lu mag man ci butel gëm leen gañe bara mën a bañ yi ni du soppe seeni xelaat yal na hem ci ñoom xut bu samaan matta xool bët añi barahama na yal na yàlla gotti say noon naqasal seeni pexe ar arna selin jëng waylun sidi barahama na jaal leen ma murid sadiq bi seexu jang mirina seen këram ganga helliina sidi barahama na sumbax doon traité seexu jang raw mee mu way ma tuuru seexu jangay murid sadiq sidi barahama na magi daara koy jooy tooli baay yaa ngi koy tagg juma jaa ngi ñaanal Cheikh Dieng Sidi Baraha man a suñu meloon ne Cheikhou Dieng ndekoon baay du jajji Cheikhou Dieng ay murid sadiq ndongo yi ku doon wuutu bili biddiw ca kaw asamaaw guy gu mag doom ba ron na gani Baraha man a Cheikhou Dieng ibnu Ibrahima dootoon mbaam daara kari yoo tëjji fa mbër añi bara amma ña taxani bu leen jasit jàppe gaaña mbaali rawuñ dawal yàlla xam fu jëm sidi bara am na gaal gu fees dundu capitaine bàyyi bëgg a xiifu googa gaal du bëri mene bar sidi bara am mun a xam sa gaal te mënoo ko jaaroo bag bu liberté bi ñëw na di bara am mu ma faatiwul kunus bi tur bi yaxan ma bakkan bang may la bakkan du dee dafay feebar sidi wara ah, ah, am na ma fàttiwul kunuus bi tribiyaan ma bakkan bang may la jël bakkan du dee dafay feebar sidi wara am ah, na ibrahima juuf dellu ci tarbiya malaan dañ koy fóot ku feebar war a dem ka docteur sidi wara am man gént man gént gu ma sudul to nag wekkundi kunda kollaaji wakër sidi baraham man a gént naa man juróom ñaari mbaam ngonku ñi ngay laggul gaynde ñi nga topp saawa say xëy sidi baraham man a bañ ko jubi gaynde ga sab na juróom ñaari baat juróom ñaari mbaam yooyu yóbbu góor sidi baraxam ma ne booba laa gis gaynde gay daagu da ñëw ci seen biir de laak gen ba da leen xiiru baraxam ma ne booba laa gis njanaaw lu ba xoo ca kaw asamaaw naawa naaw ba ci seen biir sidi baraxam ma ne njanaaw la jàpp gaynde ga rey ko yàpp ko bam jeex mu jël mbamee xolee doomam sidi bara ammane booba laa gis lu boo ca asamaaw naawa naaw ba dal ci kaw doj sidi bara ammane nginaaw lang leen nan li ci mulku ak li ci maloko lu fi nginaaw maa de seen njiit sidi bara ammane yaa ay wan naasu irjon ila rabbikum xayru xalqilaahi moo sidi bara amana duratul bayda bi njaaraama ñas yaa di ramaan gën gi mbindi fii addi bara amana daje ba ca guddig laay laay ga layoo ba ca saam min ka maa nga naan tubleen sidi bara amana door nañ daje ba ca takkusaan ba waxtu gee yaram ba hoo malakuut sidi bara am man a góori pey baa nga wër pili yaan ba mbindeef yaa ni tirim ne xari nari ñu garde fourrière sidi bara am a ibu juuf ne keroog jàq naata jaaxle ngir rëngi rëngi pey ba guddi keroog doy na kiimaan sidi bara am bara maa leen naan tub leen ba ma diyang mbóor jibril dafay dellu malakuut gañi bara amane bay aji Babacar nga ndongo yu tub leen su minute bi dañoo bëgg a dem sidi bara amane sëriñ mbay mi donn Babacar Saddiq dal da kaddu moom kaddu ngadu nuuru rahman sidi bara amane bay aji Babacar nga naan leen li ma leen di digal ku ndi pébi nangul leen tub sidi bara a mana saxola na siyaare te da mokkal madina kër Baay Ñas kunde du ngeen dellu naa suur sidi bara a mana takku saani liggéey ba ca caala keroog damaal gaañe mel ni day gu jot boog sidi bara a mana toolam ba ca gannaaw xurwa boori koosi caameen wana na fa karaamay moom sidi bara a mana ba tool ba ca yor yor ngelaw la tàkkirlu billaay si daaw keroog laay yim Sidi Bara amane entrepreneur ba ànd ak mairie ba directeur ba ñu jëli ngelaw Bahru Malakuut Sidi Bara amane entrepreneur ba Ibra Faal mairie ba Ousmane Ndiaye la ba Sëriñ Aliou ñoo jëli ngelaw Bahru Malakuut Sidi Bara amane ba bay di tollu ci buntu tool ba ngelaw la tataar gereñ ba xaw na may tampon Sidi Bara amana ñu jiiri tool ba andi saako sëb ko ci sikkar sa jolli ñu jëm kër Sidi Bara amana takku saani liggéey ba ca caalan dama bili mbaan gaaña ni daaj gu jot boob Sidi Bara amana sikkar sa jolli fa caalan riit ma jëm fa bara mel ni terrain bu jëm ci gaar sidi bara amana borom kët gi jóg na la xasaayu leen ñu dem tool surga bu ci naaje doogóob sidi bara amma fonk leen ma dafay indi wéetaay kañaan fonkun muut mere ponkal hendoo ñaawaay dañu bara amana mbokk ñor na suna palpal na ba di xonqondooro gàññi mu leen xiif bi jeex na Sidi Bara amoon na nawet ba ca ànd ak naa tànge dafay tawta naa ñax ma la fay gàncax gay naat Sidi Bara am ma tub leen te ees lu ci bàyyi ko ndee du ngeen layoo buur xam ngeen ne Sidi Bara am mooy Seexu Tijaan tub ees lu ci bàyyi ko ndee du ngeen layoo buur xam ngeen na Sidi Bara mooy Seexu Tijaan fal guñ fale asal ku ko folli man def na may rey ëllu soo daan dañu riiroog Sidi Bara ama mag du janoog yooñ da gas caaxaan bu leen tànqal baay Seexu Tijaan yàlla koy fal moo di barahama mag du janoog yooñ da gas caaxaan bu leen tànqal baay Seexu Tijaan yàlla koy fal moo di baraama sarihatu ku ko caaka yoo xemal ci sa kër boo ko yóbboo ku si day lay saf ni kii mbaamu sarihatu ku ko caaka yoo xemal ci sa kër soo ko yóbbu ku si day lay saf ni kii mbaamu sarihatu ku ko caaka yoo laaji ko baraam sariixa toog la ca biir yow wër na baraxama digi bi ngeen digee àddina dafa leen koy njuy xelimaani fay duba ñëw na moo de baraxama digee bi ngeen digee àddina dafa leen koy njuy yëgo wuute waral dëgg jaan gaañi baraxama burxaacu sim na gaañu ko jàngoon de weddi baraxam jëfee caawata doo fas meew gàññi linkaare burxaaju simna gàññi ko jàngoon di widdi baraham jëfee caawata doo fas meew gàññi linkaare muraay yi rëy yi ngeen nekkee ak lëndam la ci yéen muraay bu doon taxaw falu bon juma dib seefoo muraay yi rëy yi ngeen nekkee ak lëndam la ci muuraay bu doon taxa bon juma dib sefo muuraay yi rëy yi ngeen nekkee ak lendam la ci yéen muuraay bu doon taxa bon juma dib sefo ku la géttati ne ko njol mi baraama sun na leen jees bu leen xañaan bu leen bañ bañ lu ku ci bañ ba dee yaa weddi yàlla yaa bañ maam Seexu Tijaano ku la géttati ne ko njol mi baraama sun na leen jees bu leen xañaan bu leen bañ bañ loo ku ci bañ ba dee yaa weddi yàlla yaa bañ maam seexu tijaanu xaq qadru qadra yéenay liggéey Faydu Baay bi Sidi ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV